dimbali nit xel ci gën. am xel ko gën gis naa mu koy dimbali ci xel gis naa mu koy dimbali ci doole. grand nan ci lépp. Cheikh Diagne Naar. grand kooku waaw kooku kooku mooy les fatigables. Mm-hmm. wala non fatigables. les fatigables. les fatigables c'est les di nuyu Aram Faye bu Mbour. Mm-hmm. di nuyu Soxna Nabu jàmbaar ju mag joo xam ne kooku maam li muy wax dafa néew waaye li mu jëf dafa bari lool. bu jëfee mooy. barki Serigne Bamba nit ku baax di nuyu Fadio borom Marok. Mm-hmm. di nuyu képp koo xam yaa ngi VIP Pape Sène Serigne Mame Diarra ak Fëri ñu ngi koy jaar baax di ko ñaanal jàmm di soxna benn sàll ñu ngi koy jaar baax di nit ku baax nit koo xam ne kenn moom di nuyu Amina bu di nuyu rek euh, waa VIP kul rek ku lim maa ngi leen di jaar di leen ñaanal di jaar fan su ndongoloo yi di jaar waa ah, di jaar kul rek ku dëkk Pikine koo xam ne rek euh, maanaam jaar-jaaru Ndongo Lo am na loo ci fekkee ñu ngi la ci woo di la wax ni le 16 janvier ñëw na du nuyu Dogo Mboup grand Thierno Diouf. juuf Diouf ah, ma ngi daal grand Dame Dame Gueye fa lañ jóge woon. Mhm. Ah, di nuyu ñëpp di nuyu ziar grand maam lay meng Mboro. Mhm. nga xam ne daaw dëgg yàlla sele gis nga la fa andi woon ci ay teraanga. ñëw andi lépp lu ñuy naan rek grand maam laay moo fandi ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko jàmm. Mhm. defal ko ay xéwal yaatu. waaw di nuyu waa VIP bi di ñëpp rek ku lim da nga mm-hmm. maa ngi nuyu sama benn jigéen bu baax boo xam ne kenn du moom. Mm-hmm. di ko ñaanal suñu borom lépp li mu bëgg li mu bëgg lépp li mu bëgg ci moom Amina lépp li mu bëgg ci moom wala lépp loo ku bëgg ci moom yàlla suñu borom defal mm-hmm. amiin di nuyu waa ñàkk gi nga xam ne sama doom fa lañ nekk ci yàlla ñëpp waaw bébé euh, Coly Tyson mii nag euh, sele ndax euh, bëgg dafa am solo quoi ndax li bàyyi nongoloo naan bëgg mun na lu ne Euh, Petit Tyson mu ngi koy parce que jot yombul ku dagg say liggéey oto jaay ko oto la bu mag boo xam ne ñëpp ko am ci àddina dëgg la mooy Touba borom Touba automobile lépp <laughs> ñëw ñëw teewee loolu yombul fële ca gàddaay ñu ngi lay ñaanal ki nit ku baax la bi ñuy takk rakkam mhm. dafa ne maam Cheikh Niang bu ko woyul kenn du ko woy mhm. mu ñëw jox ñu xaaj bu dul jeex sax amal li dama ko dugal bëgg ndongo <laughs> ne maam Cheikh bu woy woyul xew rakkam kenn du ko way mhm. ñu ngi koy ñaanal suñu borom rakkam jooju sëy boobu yàlla na suñu borom barkeel ko moom it li muy liggéey yàlla suñu borom dafa ko ci kawe jotam ci barke bi Seydina Muhammad ñu ngi koy di ñaanal kullu rek koo xam ne rek euh, di ñaanal waa Campenal waa Campenal nga xam ne jaagebu leen féete ginnaaw mhm, mhm, ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom suñu borom génne leen ndax euh, nattu lii naan nattoo di kerkeraan ku di laajal xëyru leen bi ay di yàlla tegoon nattu Seydina Muhammad teg ko Serigne Touba teg ko mag ñu baax ñu leen ko teg mhm. yàlla lim nar a jox jaam ci ay xéwal bu ko attan da koy xamaa ay nattu mhm. yàlla suñ borom génne leen ci jàmm bi nga xam ne dañoo tëdd lal hôpital yàlla nañ jóg ñu tawat yàlla ñëpp jóg yàlla bu kenn feebar yàlla ñëpp am jàmm ci barke Seydina Muhammad maa ngi ñaanal ñëpp jaajëf jaajëf jaajëf kon gars yi mi ngi noonu incha allah le 16 rek. Mm-hmm. tamit euh, bis bi bis la bis ñëpp la vraiment. Mm-hmm. bisu VIP la man mii di wax sax sama bis la. defaguma ci dara dara ci dara. dëgg yow yaa yow yaa yow yaa bis la. Mm-hmm. yaa bu baax que gis nañ noonu. ndeysaan waaw bëggee tamit aussi tamit les fans de Ndongo Lo vraiment chaque euh, année ñu taxawee ko. jàpp mbir mi comme seen mbir ne ci waañ bi surtout jigéen ñi ñoom di. ñoom di Fatou Yaraax ak Mariam Dieng Sala borom Zang Mbaaw bilaay comprendre nga ñoom Fam Ndongo Ndiaye ñëpp vraiment ay ay ay ay Amina nga xam la jógee mhm. ba Mbour bàyyi ayam mhm. day jël ayam boo mhm. rakkam mu jóge Touba mu ñëw ne ko ayal ma mu ñëw ci ñaangi pour le 16 bi pour le 16 janvier passe xaalisam aller ak le tour ñëw dëgg la dëgg la kooku ñu koy ñaanal suñu borom may ko njaboot bu barkeel yow nag Sadiboro comme ni nga waxee noonu rek mën nga ko joxewaat parce que à yaa ngi en direct sur seen télévision Bëgg Ndongo TV mm-hmm. international ginnaaw bu ñu émission ba pare ku bëgg a ku bëgg a ñëw ci sa numéro de da nga koy joxe joxewaat a ñëw ci le 16 janvier mm-hmm. koo xam ne am nga loo ci barkeelu ci kaamil bi déggu ma la de ma ne 77

déggee Siteu de wooy moom yaayam la doon xalaat yaay Siteu nekk man du ma wax sax ay Siteu ak yooyu mhm. mais ndey ju liggéey dafa am solo ci doom waaw am na loo xam ne nit dina ko am mhm. nga jàpp na yow la fekk du yow sa ndey ko liggéey ndax euh, balaa ngay xam ne sa ndey dafa liggéey nga dugg ci loo mënul mhm. dégg ma de ma ne balaa nga xam ne sa ndey di ko liggéey mhm. nga dugg ci loo xam ne da nga yaakaar ci génn ñu naan dara dem dëgg ndeysaan ci <laughs> ba may gërëm sama tailleur Mbacke si jaay Mbacke Gueye ndeysaan kooku c'est le tailleur autrement c'est le maître de tailleur nekk fële ci mhm. lépp lu bëgg noo nga sol moo ko ñëw tey jii nii dafa ñëw ay yére yu bari ba mu pare mu jox ma ko jënd ma tisi fayu ma ñëw defu ma tus ba ci bii ma sol ci la bokk muy Mbacke Gueye ma bëgg nag waa àdduna bi yëpp yëpp yëpp yëpp ah. ngeen ñaanal ma Mbacke Gueye koku kenn moom mm-hmm. Wally Ballago Seck dama koy bëgg baax baax di ko gëre parce que ren vraiment dafa yëkëti xar jox ma ndaysan ndaysan pourtant comme ni la jógee leeral rek ah ni sa pare ndaysan ko def sama moo tax vidéo génn mm-hmm. dox mbëkkante ak moom vraiment rir mm-hmm. comprendre nga ñuy waxtaan man ko ah man dé la fois pas ni nga dajé fi ak Albura ah ok DJ bëgg na yow kay xamee naa la 10 ans ñu waxtaan non ñu ma foo jënd ne ma damay ñibbi comprendre nga après munu ma ok daal di woo Fallou mm-hmm. Fallou doomu Abdou Ndiaye la mm-hmm. ni vraiment joxal ma dijë bëgg noomu mi xar mu yóbbaale ndeysaan te loo xam si sax c'est pas programme ndeysaan xam nga xam ne loolu baax baax la xamul war borom baax la mm-hmm. seleb mbaax su baaxee dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg day niroog dof dëgg la ndax man Wally Seck bima gisee mu ñew di jël enveloppe diko jox président Ablaye wat mhm. diko téral mhm. président réew mi. Mhm. Wally ci jël enveloppe diko jox deju papay ku ma galoo Seck. ci la xamne ki ni muy def trang gi muy def. dëgg la ci deret ji la nek deug la tamit yow mom sa. yow mom si ko war wax da nga war wax. parce que sa petit frère rek. Pawlish que vraiment ren la. jeex na. mu am lu bari loolu ne loolu ñoom. yàlla seen biir la seen biir la. mais man li xam ci Wally na. mun naa def social nit la koo xam ne mu ngi dimbali doomu adama yi loolu laa xam ci moom. dëgg la waaw man ay côté musique sax du ma ci wax mais man nit ki li may gën a focus ci moom. Mhm. mooy lu baax li muy def. lu baax li muy def waaw parce que li ngay li li ngay woy ak li ngay yooyu yëpp affaire àddina la. Mhm. mais dafa am loo xam ne. keroog yomal xiyaam moo lay fekk ci biir bàmmeel. comme ni muy lu baax jëf ju baax waaw. mooy seede borom ëllëg. ëllëg ci biir bàmmeel. ndax ñett yi maa koy wax ñett yi maa boo ko defee keroog yomal xëyaam moo la ko fekk. dëgg la mooy garab goo saxal. garab goo saxal nit ñi di kerlu. Mhm. teen boo gas nit ñi di ci naan. Mhm. wax ju baax ñoo fi bàyyi ay nit di ci jariñ. dëgg la keroog yomal xëyaam moo lay fekk fa nga tëdd. Mhm. te dem si yàlla si nongoloo côté ci moom la nekk de mhm. sele mhm. kenn du nongoloo wooy mhm. woo fi wooy woo fi dégg mu riis ba nit ñi ko coow boo la fukki baat juróom ñeenti baat nongoloo ko wa képp Bamba wooy woo fi jeex ba mu jooy loola nongoloo nongoloo moo fa pare la moo fa ëpp kon ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom suñu borom defal ko jàmm di ñaanal suma nag Pawlish Pawlish Mbaye yàlla na ko yàlla suñu borom defal jàmm léegi këram laa jógee mu jox moom saabu dal saabu bi tey Sëriñ Bamba saabu wax day am séeréer quoi. waaw parce que sëñ Fallou Mbacke. saako kaa ngi nii saako baa ngi. Pawlish ñoo bokk ndey ak baay. Pawlish a def lii ndeysaan. saako la daal daal sëñ Bamba daal yaa ngi nii. ndeysaan macha allah. ay saako daal la ma jox. ndeysaan ndeysaan xoolal lii rek. sama rak ñoo bokk ndey ak baay. ndeysaan waaw boo xamul jàpp ne Pawlish du jàpp la ay mbokkam. ndeysaan waaw ndax xolof nee na. bu xamul xamul. bu xamul xamul. dëgg la. ndax wax dafa jooy ñu laaj ko lu la jooyloo mooy dañ maa wax jotuma. dañ maa dañ jotuma. waaw ñu ngi koy ñaanal suñu borom yoonam yàlla suñ borom leer. amiin waay amiin ndax euh, yàlla rek a man. Mm-hmm. Paul Tyson. Mm-hmm. yàlla yàlla rek a fi nekk. ndeysaan képp. barki yàlla yàlla mi suuf ci tiim suuf ci yonent bi doon dox. Mm-hmm. asamaan si tiimoon Seydina Muhammad ba tey mu mën a nekk nii. nit ñi rek ay soppeeku. képp di changé melo. waaye yàlla mënut a changé àdduna bi mënut a changé. moo tax gisatoo kaa xatar. déedéet. nit ñooy kàkkatar yi. jeex na <laughs> bu nit ñi commencé soppeeku la kàkkatar dem la kàkkatar dem. jeex na léegi ñu ñooy kàkkatar yi mag. barke sëñ Bamba yàlla yàlla defal ñu def def ñun dëgg-dëgg. amiin waaw ndax dëgg mooy mucc dëgg mooy njëkk mooy mujj. ndeysaan te lu nit bëgg a def démb ko ko def tey na la. Mhm. yàlla suñu moom dafa ñëpp jàmm. dëgg la dëgg la ci ma day ñaanal kii mhm. ndax wax dëgg yàlla dama koo xam démb. Mhm. ñu nekkoon biir kaw étage am di ko def émission yii man émission bii nii ba ci serigne bamba fi nek ni man dama ko waxe fi mu nek ni parce que man man ko gis yenen ni leufal nax euh, nit bu baxé dara jom ko waaw ki amna ñaan wajur amna liggey amna amna liggey lay deug la nak ci serigne bamba dañu nek kenn jëpp ko dañu nek kër deug la di taal ay affaire ak di taal téléphone di da affaire di fay di fay day yok rek waaw <laughs> motax nangulo ay biram mhm. jëmbat mu law bejj nangulo dal ay biram lim nang li Serigne Saliou naan sama ñag bi di ci laal bëy nombalu daal yëfam daal ca la jëm ah moo way suufu jammaan ku si jëmbat tamaate dangaa xamul la ci biir jeex na boo ko xamul doo ko jëmbat di xaar di bi ñor jeex <laughs> suufu jamaa la barki Serigne daal waaw ay lawtal la lawtal rek suuxat mu law suuxatu mu law jeex na jeex na waaw